<coughs> Daamal Kajoor. <laughs> Eh, waaw <laughs> mhm. maa ngi leen di nuyu. waaye na def. ñu fi. alhamdulilah. maa ngi leen di nuyu. ngi lay fay. waaw di sant yàlla. Mhm. ci teewaay bi ma teew ci plateau bi. di rafet lu teewaay bi di mhm. kontaan ci ñi ma fi fekk. jërëjëf. Daamal Kajoor. yow da defoon yaa gën a muus nit ñi. Hmm? lu tax nga wax lool. yow dil dil dil nga ak Ablaye Wade. Hmm. Ablaye Wade bàyyi la fi. Hmm. tey nga ñëwaat bëgg di la ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall. waaw mënoo xam nga man moom maa nga juddoo. Thiès Thiès ca diggante mbuusanteeg mbëkkante. waaw xam nga foofu moom ku fa juddoo. Mhm. ku yaakaar ni mën na laa mbëkk walla mu muusantu la. mi ngi ci erreur xam nga le président Macky mhm. eh, dama xuloog moom. da ngeen a xuloo bu tàng. nii génn ci biiroom keroog. Mm. dama mbëkk bunt bi dal ne ko dinaa la jox say lenge teel say lenge. tey nga jox tey waaw tey ci ne ko ne ko dinaa la jox say lenge. ne ko man kenn du ma ndax la ma bañaloon Ablaye Wade mhm. loola laa lay bañal mënuma la koo nangul muy troisième mandat mhm, mhm. dama koy xeex parce que mënuma nekk chef de l'opposition ba noppi di ko nangul loo xam ne nanguluma ko woon Ablaye Wade yow la def de l'opposition yéena ma ko def la ko defee yéen ñeeñal yéena ma voté loon di booboog kenn élection amul élection présidentielle sondage yi génn taxut nit ki ñu fal ko walla ñu folli ko. Mm-hmm. yow da yéen da def ak Sonko ma ne bu dee da ngeen a weddi man mën naa toog fii wax loo xam ni ñëpp dinañ xam ni man ak Macky dañoo xuloo da ngeen defee ni dañuy din maa ne Macky hoo hoo hoo yow man defe ngeen ni man opposition laa nekk. ngeen defee ni man nekkuma opposition maa ne ko eh Macky waaye emo oh alors ah bu dee da ngeen bëgg ko tàng rek lii du tàng maa ne ko yaak Marème eh ak Amadou oh waaye hoo hoo hoo hoo nga ne nooy na ñaari hoo waaw lu ngeen bëgg ma ne li Ousmane Sonko wax mane ne ee eh, Macky boo continuer lii di def li nga bëgg a def bu boobaa waaye naajoo naajo <laughs> oh naawal kajoor mais naawal kajoor ba damay yow xam nga Macky ne dangaa bëgg a dem demal waaw ma ne ma ma li mu li muy bañ. moom Macky. li muy bañ laa ko wax. muy nag oh. oh <laughs> oh, oh. moom leer na kii mais est ah, sa muus gu ëpp gi nga muus est que indiwul parce que yow da nga bëgg a cal yi ñuy wax man calculé wu ma. Sénégalais yi ñoo ma jiital. yaakaar nga di yow di nga nekk président ci réew mi. incha allah bii mana parce que Ousmane Sonko. Mhm. man damaa bëgg sax moo xam nga bëgg naa mu dem. waaye li ko galgal. waaw ta que moom. Mhm. boo seetee mook mbay Prodac. waaw. boole koog aji raabi. boole koog député kii Ousmane Sonko plainte yi nii la escalier yi <laughs> mm-hmm. bu jàll beneen ñëw. <laughs> bu jàll beneen ñëw day dox ci ay plainte. Ousmane Sonko nii lay def ci plainte yi ba deux ni kooku ah. wax dëgg fa yàlla nag mënta bokk. Hmm. comme nag maa fi des di dernière ah. chance. parrainage ba nit ma bàyyi kan <laughs> bëgg nañ ma ñoo waxi noppi te fi nii bu ma toogaatee defaat plateau ne ko Macky ba mu xool ma ma ne ko hoo oh. <laughs> oh oh. sukk nabadan yow fa nga nekk fa nga daan kii sax muy Malikeer yow dañ la fay gañe yow apatoo fa dara mieux vaut nag te pare man li ma gën a metti mooy wóor na ma ne même yow bu na joxee li nga xam ne moom moo di nga nga ñëw hmm? eh, Malikeer dañ ko faa dañ ko faa damay changé bureau de vote maa nga bugg a dem ndaamaatu ndaamaatu kat day changé Touba yóbbu. mu fa ay eh, eh, mais Thiès nga dafay Thiès nga dëkk yow. ca fa say sœur fa la nekk ñoom tam day maa yem ñëpp ñu ngi koy de naa Thiès bu mbir yi dëpp damay dem ca Touba. jëw jël nga xale yi kap ka kap la dàq nañ jéng yi. ñan. dàq nañ jéng yi. fan. mooy li ma wax. loo wax. léegi <laughs> li ma wax. loo wax. sa temps de parole jeexul dara nga doo wax Macky Sall. Oh. <laughs>